xalifa Ababacar Sall xaatim na charte d'engagement bi nga xam ne association nationale pour une pêche durable ñoom ñoo ko sumb. alors moo tax ñii lii ñu bind man sax dama ni leen dama ko xeeb mais comme que dañuy waxtaan ak ñoom fas yéene ak liggéey ak ñoom daañu ko yokk parce que xam nga li ñu gëm mooy mbay napp gi ak xaalisu napp gi na toog Sénégal parce que réew yëpp loolu lañ def de. ci charte boobu nekk association bi jébbal na ci ay doléances yu bëri bokk na ci ñu saytuwaat li nga xam ni moo di accord de pêche yi. moom mooy mooy accord de pêche yi wax nañ ci mooy juróom-benneelu poñ bi parce que dañuy wax ne état du Sénégal na jël ay matuwaayam ba évaluer accord bi nga xam ne moom moo ñu lëkkale ñun ak union européenne muy bateau union européenne yi ñëw di napp jën wi di ko yóbbu. nan la ñuy def ba fexe daal ba loolu ñu mën ko saytu mën a wax lan la Sénégal di gagné ak lan la siy ñàkk. ci loolu Khalifa Ababacar Sall nekk candidat ci élection présidentielle yi di ñëw daal di dalal xelu ñi nga xam ne moo di nappkat yi. ma ni ñuy dooni milliardaire ku iñaane sag ndono sag day ñaaw ñu na ñuy dooni par napp gi moom la ñu gëm moom lañu xam moom la ñu mën nañ leen ko dooleel ba dootuñu jëggaane ku ñu nappal suñu jën na am ñi si daan ñëw mais nii nañ taxaw ba pare donc li ñu war def mooy ñoom ñu delloo leen ca lañu moom. charte boobu nag dinañ ko jébbal képp koo xam ne candidat nga gannaaw leader bu taxawu Sénégal yeneen candidat yi dinañ ci topp.